ñi nga mm-hmm. xamante ni gëm nañ ne loolu tey teraanga la boo xam am yàlla yi chaque année te muy dëgg ci ñoom yàlla gën mm-hmm. leen ko ñu koy def lenn rek lay ñaan ñu jële ko fi si dëkk bi mooy li nga xamante ni mm-hmm. obligation ak puukare obligation mooy nga teg doomu aadama lu mu àttanul parce que soo tegee ni lu mu àttanul rek bu tëddee du nelaw donc comme puukaru koor dem na ba yëngal sëy yi ñu bañ ko def obligation lu diine mhm. deful obligation bu ko teg doomu jàmbur mu nekk obligation ci moom te ñuy jàpp te yàlla rek rek tax parce que heure mhm. bu ñu jàppantee te yàlla tax compréhension day dugg ki nga mhm. xam ne sa doom da la ko nekk beneen doom ci yow soo ko comprendre lu la naqari ci moom di ko mën a woo ci ne tëj ko wax ak moom bu amul suukaru koor sax dama koy wax dama koy wax parfois nga jënd dara ñëw ne jabo biiw mooma ko mais rafet na mag yi dañ ko daan def Mm-hmm. di suturaal seen i doom di suturaal seen i jabaru doom donc mm-hmm. euh, ñu jéem a xool nan la diine wax si ñun lan la aada wax si ñun lu baaxoon ñu jël ko euh, boole ko te éviter ni nga xam ne moom la ñuy mm-hmm. dundee mooy jiital xalaatu àdduna je pense que loolu buñ ko defee rek solution dina juddu te doomu aadama yi bu ñu tëddee dinañ nelaw surtout xale yi jigéen yi nga xam ne ñu ngi sëy période bi d'accord su fi jaajëfal na bu baax nag plaisir loolu ak ñun Euh, ñu partagé ak yow plateau bi li nga fi wax yëpp am na solo macha allah. alors Lamine